tey ñu nekk ak le grand champion Lac de numéro 2 Lac tey nga gis naqar ak tiis bi dal ci kaw ahlu làmb rawatina waa Géejawaay ak école de Mor Fadam ban yëg-yëg nga ci am. avant tout dama koy jaale waa écurie Mor Fadam di ko jaale guy gi di ko jaale Pambaay di ko jaale képp koo xamante ne yaa ngi biir écurie Mor Fadam di leen masalu tiis bi dalul suñu écurie bi kese tiis bi Géejawaay la dal parce que dañoo ñàkk ñun ñëpp a ñàkk mu nekkoon suñu papa ju baax bu bëggoon Géejawaay doon défendre couleur Géejawaay kon jëmm jooj bu ñu ko ñàkkee rek dañuy delluwaat suñu xel ci yàlla waaw mooy li may faral di wax rek dëkkul fenn fu ko neex lay jaar heure bu ko neex lay jaar kon donc nañu delluwaat suñu xel ci yàlla xam ne yàlla moo ko soxla jël na ko lu mu fi soxla moom mooy leen ñu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana ci àjjana gën a kawe. nga yëg nouvelle bi fan la la fekk. waaw boobu maa nekk di entraînement salle damay génn ci salle bi rek après ci lañ ma koy waxee ci lañ ma waxee nouvelle bi daal waaw ma mu des fois lumay faral di wax rek nit buñ la waxé dara rek da ngay delluwaat xel ci yalla dal parce que ñun ñi di wax ak ñun kenn xam ban heure lañuy dem wa yalla nañu yalla fekk ñu fekk ñu jëf ju bax rek wa diko ñaanal yalla yalla na yalla xaré xare ci aljana yi gëna kawé kawe. loolu buñ bu ñu la xoolee macha allah li ngay ñaqee yaa ngi respirer la grande forme fan nga tollu waaw xam nga bo dem fan nga tollu dina xaw doy war trop du du ma ci wax nak parce que tis moo fi indi tis bu ma laal sam bir xol waxu état indi guñu li ñu indi moom mooy di ñaanal suñu papa Mor Fadam yàlla xare ko àjjana ci àjjana yi gën a kawe yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Mohamed merci beaucoup.